damay nuyu borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko ñaanal jàmm ju bari moom ñëpp ñu ma àndala ah. Mbaye Babacar soo fayee rek daal di ñëw jukkil leen li gën a fës Mbaye maa leen nuyu jërëjëf Ndeye Mbacke waaw tey moom danga ma nuyu fay naa la euh, naan la waaleykum salaam wa rahmatullahi taala nag maa ngi nuyu suñu xarit yi ñuy topp ci Leewtoo TV yëpp waaye kër gi kër gi de temps yi daa am ab jaay ko du fonde de <laughs> jaay ko du fonde amul pertement boo ci amul bénéfice am ci sag ah eh. yéen a koy eggale yéen ñi seetaan. <laughs> yéen a koy eggale ba tax na revue bi seen huile j'adore moo na koy may ak gambu complet boobu mu àndala ah. daal ñu indil pat vermicelle j'adore macaroni j'adore spaghetti j'adore ñii di tubaab daal di ci teg ataaya j'adore. waaw léegi doo wax ci jaaykatu fonde bi ci kër gi. mbay baa ko doo suturaal ngir yaa nga maa jaxase ak internet. Ah, <laughs> moom mi mooy jaay fonde. <laughs> mbay ko ci topp. ayca. ok. okayaar ay ci okayaar moo ci topp ndox mi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla ndey mbàkkee comme noonu nga waxee huile noonu la ñu taamoo okayaar ndox mi set na sel na neex na ñi ko jàpp ñépp bàyyiwuñu ko ndax njëriñ li ñu gis ci okayaar kon daal okayaar mooy ndox mi ñuy aar ayca jeudi 17 juin 2021 journal suñu la xëyee ci xëtam mu njëkk la muy xëy di xam ne te di ko ñaaru nag mooy débordement yi am ci face to face violence ak yàqati yàqateef acteur lu nag Baye Bakar ñu ngi yuuxu wàllu li waral ñu wax loolu mooy ñaari face to ñu mujjee gis diggante Ama Baldé ak Modou Lo waaye diggante Tapha Tine ak Boy Niang tamit la ca xew nekkut la nga xamante ne bii rafet na ci image yu làmb ba tax na kii di Gaston Mbengue ak Doudou Diagne Diecko yëkkati nañ seen ay kàddu euh, ci biir journal bi Gaston Mbengue moom li mu wax mooy euh, pour nga am benn événement bu réussir euh, amul secret organisation kese la laaj ak li nga xamante ne bii moom mooy jël sa ay dispositif yëpp nee na ñaari mbër yi sax mën nañuy def émission yi nga xam ne ci télévision yi lañ koy def benn benn benn amateur du ko fekkee ñoom ñaar li ñu bëgg a wax yépp ñu wax ko ci ki nga xamante ne bii moom mooy du jànjee li ma xam xamle moom mooy face to face yi amateur yi ak fans club yi amuñu fa place ñaari mbër yi kese ñoo fa war a nekk ka nelaw gudd na nelaw bëccëg ngir daan nga xam ne mooy di guy gi Reug Reug nag mu ngi ci États-Unis mbay le 25 mai bi passé. doole la wuti ngir jëflante ak ki nga xamante ne bii mooy guy gi ñaari weer la fa fas yéene am incha allah bu ci yàlla àndee nee na guy gi mi nga xamante ne bii fi mu toll nii dafa takk rajo yi di wax rek su ma jàkkaarloog moom dina xam ne lépp dëgg la maa ko gën a nekk xele maa ko dàq bëreet dinaa ko daan. te noonu nag Franc lañ jëm Franc ak Tyson 2 ginnaaw ba ñu tuddee Franc la démolisseur daal di tuddee Tyson 2 le boxeur maanaam choc boobu nag choc champion d'Afrique lii la Mbaye Babacar samedi lay amee. Mm, des champions des des loolu la journal bi bind tey euh, Franc moo doon def open press démb fële ca Parcelles Assainies woo presse bi ngir ñu ñëw fekkee si open bi mais li ci gën a doy waar Franc dafa woo presse bi ba pare waxul ak benn presse bàkku na. wane na ay formom Modou loo ñëw na Gora Sock ñëw na Papa Sow ñëw na ñoom ñeent ñu ànd bàkku àndandoo dem seen yoon muy la nga xamante ne bii presque bi yépp ñu ngi koy ñaawlu di ko naqarlu ndax lan doon xaar ci Franc mooy mu toog jàkkaarloo ak presse bi ñu koy laaj muy tontu mais mujj la am. open presse kan lu ci wax. Franc boo defee loolu li def ko xëy na di am nga ay raison après lu ci mën a am na dinañ ko xool daal di leen koy tegal ñu xam lan moo waral Franc. waxul ak ñi nga xam te ne ñooy supporter am waxul ak presse loolu dina leeri ca noonu nag mercredi laneen lañ jëm ginnaaw ba nga xam ne mooy Iba mécanicien daal di daan taqandeer bay Babacar mu nekkoon komba bu neex komba bu am bëre combat bu am xeex ñaari xale la yen ya nga xamante ne bii macha allah remplir nañ seen contrat waaye amoon na yeneen combat préliminaire ya nga xamante ne bii amoon na fa caatu seeraas moom moo daan ki nga xamante ne bii moom mooy Wally Ballago Seck du Wally bi woy de ah. waali bii mu ngi écrit bi nga xam ne moom mooy écrit Ablaye Dieng xam naa dafa tuddee boppam waali waali waali Seck amoon na beneen combat jinne bu ndaw xaw ma kañ lay màgg nag jinne bu ndaw nekk écrit jëf soog a nekk moom tamit daan na fekk nga xamante ne bii moom mooy caatu ngor bu écrit olympique ngor kon mu nekkoon combat yi nga xamante ne bii neexoon na lool euh, CNG commencé ko ñu koy ñu ñaan ñu yeggale ko ci jàmm. dañuy jógee foofu daal di dem ñaaxaar ñaaxaar danga bay Babacar am na lutte simple le 18 le 19 juin mise ba nag 1 million 500 la. groupe ànd yàgg groupe ànd yang bi groupe ànd yang bi xam naa loolu nag sama mbokku séeréer yi mën a tekkil groupe ànd yang bi bu ñaaxar ñoom ñoo organisé boobu les gala incha allah bu ci yàlla àndee 1 million 500 la ñu fa teg di ci woo mbër yëpp xam nga nag ñaaxar place la ba nga xamante ne bii. placeu làmb la dëkk la ba nga xamante ne bii tamit dëkk bu bëgg làmb la kon mën nañoo xaar foofu ca ñaaxar làmb ju neex bu ñu jógee ñaaxaar dañuy dem Fatick Mbaye Babacar Fatick nag le 25 juillet juin bii ñu jëm grosse mise ba nag 3 millions la Mbaye Babacar temps yi Fatick tàng na de lit simple mel na ni temps yi ñu ngi wane seen bopp ci li nga xamante ne bii moom mooy làmb ji Fatick am na li nga xam ne moom mooy 3 millions lañ fa teg allah bu ci yàlla àndee comité de gestion bu arène Ngor Sidi Ndour ñoom ñooy euh, taxawal boobu boobule combat ki nekk président bi moom moo di euh, ki nga xamante ne bi moom mooy El Hadj moom mooy président bi moom moo jiite kuréel boobu ñoom ñoo taxawal boobu boobule boobule gala incha allah bu ci yàlla àndee teg ci li nga xam ne moom mooy ñetti millions wante boof. am na gala de ci samedi bi wante tamit foofu nga xamante ne bii moom mooy ñaning tamit am na gala de kon mën nañu wax ne samedi bi daal làmb simple yi bëri trop. lamb simple bi ne waaye bis de mer lañu brise de mer nag bu war a desee Siteu bu Kaolack le 11 juillet dañu amal seen face to face Baye Babacar samedi waaye Kaffrine lay amee. Sidi Diakhaté Diakhaté Kabe Yéeri moo taxawal boobu le combat promoteur bi dëkk fële ca Thiès kaay mi ngi wëyal décentralisation yi muy amal ci région yi di fa tëgg ay lamb incha allah ma nga jëm Kaffrine Ndoukoumane. fa tëgg làmb ji nga xamante ne bi làmb ju nara neex la nag Siteu kaw Kaolack moo fay bëri ak Brise de Mer Brise de Mer ñu gëj ko gis ci làmb ji wu nar a andiwaat lu bees te noonu nag Ahmed Deme lañ jëm Ahmed Deme bu Thiaroye sur la muy xëy di xam ne ci journal nag Mbaye Babacar nee na ki di Reug Reug mën naa daan ku guy gi mën naa daan maanaam keneen ku dul guy gi ci làmb ji waxtaan bu yaatu la sekk ak suñu làmb ñu laaj ko Reug Reug mooy secret mu ne Reug lenn du secret lu dul entraîner mhm. liggéey kese moom mooy secret ndax nee na mi ngi fàttaliku bi rëg-rëg gën a nekk xale nee na ñoom ñaar seen fenêtre yi soree wuñu woon nee na rëg-rëg chaque 4 heures du matin doon yee di ma di ma soññ sax ci entraînement yi nee na sama fenêtre bi tuuti muy yàqu ko ndax ni mu ko doon fëggee doole la ko doon fëggee ndax ndax nee na daf yenn saa yi doon yéex a jóg mais doole la doon fëgg fenêtre bi ngir euh, ama dem mën a jóg jóg entraîné ji wante tamit yemul foofu nee na rëg-rëg keneen ku dul guy gi tamit buñ ko ko joxee incha allah dina ko daan te mu ngi koy séentu fu sori ci làmb ji. dañuy dem journal record lutte nag la muy xamle maanaam kii di Balla Gaye numéro 2 weeru juillet dafa béni maanaam weer boobu daal weer bu weer bu ko jig la ndax 5 combats la ci am 5 victoire waaye jee la B52 de Mbour nag. Uh-huh. weer boobu fardeau la pour moom ndax ci la ñàkk couronam bi Baye Babacar. mën nañu wax ne Balla Gaye comme ni nga ko waxee euh, mois de juillet. weeram la ndax am na ci li nga xamante ne bii moom mooy cinq victoire daan na ci Saalum Saalum daan ci ki nga xamante ne bii moom mooy Boy Sey daan ci Issa yi daan ci Tyson ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Gris Bordeaux wante ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier na contraire bi moo ko dal ndax benn victoire kese la am ci mois de juillet Modou Lo kese la ci daan wante am na ci li nga xam ne moom mooy ñetti défaite Tyson Junior daan na ko ci Gris Bordeaux daan na ko ci wante tamit Eumeu Sène Tyson nga ci la nangoo woon couronne bi ci moom. loolu leer na nañ waa record ñoo ko wax ca noonu nag Gambia people lañ jëm Leket Baara ginnaaw ba mu daanee daanee ki nga xam ne mooy France mu bëri polémique loolu la mu tëggi bëtam nag Mbaye Babacar mooy titre bëgg a jël te loolu avant muy am il faut mu bëre ak ki nga xamante ne bii. moo yor googu leen dombu tànk ñu koy wax xoyantaan nee na daal fi mu toll nii bëre ak xoyantaan rek la la bëgg bi mu ñëwaatee ci comme baam ak euh, ki nga xam ne moom mooy France bu bàjjul nee na coow li bari na wante France def na quatre appuis yu leer naññ. mu ngi noonu nag requête baara moo xam ne loolu ci record bay dama lay sant di la gërëm loolu moo nekkoon li gën a fa ci xibaaru làmb bu looy tàggatoo jaajëfal la di la wax ne nga wàññi fonde bi mu ngi mu commencé def effet daa mel ni de sa lexe yaa ngi <laughs> nga nga nga nga moytu Mansour nag. moytul mañ mañ sa xarit la sa doomu ndey la sa lonko la yéen a àndoon fan. fan ak fan ngeen àndoon fan ak fan ngeen àndoon. ànd nañ fépp waaye du sama xarit nit ku bon la. <laughs> yàlla yàlla dolli jàmm dig daje incha allah suba ak jàmm ci beneen numéro de Vita. <laughs> yow Fama ay anniversaire doo ko souhaité happy birthday nga topp Mansour mi. <laughs> eh Fama Dramé borom wax nga dëgg de Fama ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax balaa teel a teel a mercredi balaa mercredi bee dellu si teel a balaa jeudi bee dellu si yàlla na dégg alxayri ah loolu du ñaan bu baax faama waxal amin yàlla na yàlla doom doolu jàmm ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire longue vie santé prospérité fan wu gudd wu ànd ak wér ndax moom amul problème day reetaan rek loo ko mën di wax tamit day reere ne pleure pas bul jooy happy birthday à toi sama lonko do xol bi <laughs> di la ñaanal jàmm ju bëree bëri li nga bëgg sa xol yaa xam ah guddal fan dundal dundal ba doyal doomu ñey kenn du ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal gudd fan uh-huh. vraiment xol bu rafet la rune laa koy def ci biir kër gi day rek bàyyi xam naa bu ma toppoon sama jikko ba léegi tàggu taw nañu waaye nag ci jikkoom la may xool uh-huh. moo tax ànd bu rafet ba léegi Fama Dramé Leewtoo yépp sama kàddu ñu ngi lay souhaité un happy birthday dundal ba doyal noonu laay def rek jox leen dig daje ëllëg ci Leewtoo TV incha allah ambulance non ñaar saakees xeex ñoom ñaar saakees si yoon wàcc jël na tafaatin dóor na tafaatin ngi dóor ci suuf attention saakees ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw saakees boo daan na